anhu daf ñuy delloo sa suratu Ali Imran yaa ayyuha alladina amanu ittaqullaha xaqa tuqaatihi wala tamutun illa wa antum muslimun dimension spirituelle la xaqa tuqaatihi xaqa tuqaatihi foofu la Seydi Maalik toll woon allahu akbar Pape Hann yéen nga ne Seydi Maalik benn yoon laan lekk ci bis bi ah def na loo xam ne néew na ku ñuy tudd def na ko vingt cinq ans yi mu mujj dund benn yoon lay lekk ci bis bi dund na 45 ans guddi gu jot mu julli ñaari rakka rakka bu njëkk bi xaaju kaw rakka bu jub bi xaaju suuf muy tolloog wëliyu 45 ans yi mujj dund guddi gu jot dina julli ñaari rakka premier rakka baqara ba suratu kahfi deuxième rakka mariam ba minal jinnati war naas la ilaha illallah nahnu qawmun la nakulu hatta najua maam Ablaye Sow nettali na ko nettali na ko maam Alaaji Ablaye Sow dinaa ci ñëw waxoon maam Ablaye <laughs> bi ci des mooy benn yoon lay lekk ci bis bi <laughs> du lekk ceebu jën hmm? du lekk mburu du yeey gerte hmm? du naan ndoxu robine du naan ndoxu teen du naan boisson du naan kanet du naan kafe du naan meew du lekk mbaxal du lekk damadaa du naan soow du lekk yàpp du lekk ginaar du lekk maafe Sadio Mané du lekk sulux yii yëpp lekk ko waaw du ngeen ma laaj lu muy lekk. lu muy lekk lu muy lekk laa dañu daqaar bay. laaxu daxaar lay lekk duñ ko suukar duñ ko xorom. lu tax mu ne boo ko xoromee day joxe appétit. Ah. te appétit kuy wut lu neex a koy def tabakkanu Alaaji Malick warul warula am lu neex. su ma ko ñemee yàlla laaj ma ko du am xorom day neex lu neex yii rus naa koo lekk yàlla di ma xool. te buy lekk du tibb sëriñ Hadé ko nettali boo demee ci tiiri Cheikh Tidiane Gaye bi Serigne Hadé Cheikh Tidiane Gaye nee na Serigne Hadé ko ko wax. Maodo. buy lekk du tibb day jàngale nu ñuy lekkee nu ñuy lekkee ci sëwiya bi mm-hmm. ne kuy lekk dangay ngay raxas sa ñaari loxo toog téye bool bi di lekk di xool ci sa kanam ah. benn waaye ne ko si ku fàttee wax bisimilah ba mu ne juróom-ñaari tibb ndax mën nga ko dabaatal ma laa ji mal ne ko as gor ñeme naa lekk juróom-ñaari tibb te di ko te di ko tey xanaa day xaal juróom-ñaari tibb juróom-ñaari tibb ci biir ay waaye loolu de foogoon naa ne ku ma defarus na ko mm-hmm. fukki yeeg juróom benn donc xam nga lekk laa ko bisaab Hmm? ñu ne ah na damay hmm. bañ bisaab bi. Hmm. ci taqwa bi ngay wax xaqatukaat yi. damay bañ bisaab bi ñu ji ko ci diggu jàmbur. ñu dem buddi ko andi ko jaay ko ci marché bi sama soxna wala sama taalibe jënd ko ñu togg ko ma lekk ko Maodo na ma coow li ci nga bokk. <coughs> ndax bisaab ba ko ko buddi ca diggu jàmbur la wala moomu ko te su ma la tus alun na yow ma isin anil naimi ay anil xalaali yàlla nee na li dagan laay xisaab li daganul xam nga xam naa bul wax. li ñuy réglé mooy li dagan li dagan la yàlla réglé li daganul kay moom. du ko xam nga yàlla xam na. allahu akbar kon yi daganul daal dañuy ñëw li daganul moom bul wax. wamtaazul yawma ayyuhal mujrimoon alam adi ilaykum yaa bani aadama allah taabudu seytaan. ngeen la inni lakum minhu nasiirun mubiin ngeen la. gaa yi taxawee ne la gaa yi taxawee ne. lu ngeen di xoolee hasi jahannam. waaw hasi jahannam lati kuntum tu'aduun wal yawma bimaa kuntum takfuruun al yawma naxtimu ala afwaahihim wa tukallimunaa aydiihim wa tashhadu arjuluhum bimaa kaanu yaksibuun oh. keroog la tànk taxaw na yàlla kii maa ko maa doon dox mu seeti ndaw sax loxo ne man de ba mu demee ci ndaw sa maa ko raay. <laughs> loxo ne man de maa ko fóon. bët nga ne noppil ñu ne la ñaaw bañ antaxana laaw antaxa kulu sey yàlla nee na ñun nañ wax tànk foo mos a dem wax. loxo loo mos laal wax. بت لو ما سقط لا مين لو ما سلال بانغ تدكو ولا تقف ما ليس لك بي علم الا السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه لا اله الا الله غاتل لن تانكي غاتل لن تانكي حاج مالك حاج مالك من يوي داتاي لاي باج مو فك دوما لك لا ما لك لا كو بيسا داخ داماي باج مو يوبو ما تي ني ندك كوكو جند صاح مان سما خالص ليونا لا اله الا الله ما مو وورو فوم كو جيلي مي لو تخ لك سيام لو تخ لو ما لك ياب مو ني داماي باج جات بي ندخ وورو ما مسنا رو تولو جامبو ñu ratt sooma wala yàppoo ñu jox ma ko xaqatuqaat yi asar yaa ma ci yóbbu. waaw enseignement. doo ma laaj lu muy lekk Pape Cheikh Diallo. lu muy lekk laaxu bisaab duñ ko suukar duñ ko xorom. laaxu daqaar laaxu daqaar ñu ne ah mu ne ab Ablaye Wade ñëw na fi indi na Gowaana Gowaana daqaar ñëwul. Ah, kaane njëkk a ñëw. Malick Sall ñu ngi koy nuyu suñu frère. ak moo yor Reva. nga hmm. daqaar amu ca. plan Reva. plan baa Dakar amu ci daqaar yàllaa ko saxal. kenn eh. xamul fu mu ko jëlee. man damaa gëj a dégg Dakar sax. Sadio Mal ne Dakar bi yàlla saxal ci sama tool bi ma goral sama bopp ak dugub bi ma bayal sama bopp ak ndox mi ma gas sama teen ñett yi laa composé lekk ko xanaa lu yàlla mën a mën a laaj nag baal ma ñett yi. moo tax njaay metti. tey dégguloo Sadio Mal de. jàng jàngale bay bay te buy lekk du tibb. nee na rus naa tibb di ŋaang nit di ko gis. dafa am ay muqaddam yu ko seet si Seydi Malick jox leen gura Pape an xam nga ne kuy yëy gura da ngay tabe te ku tabe di doo dem safara nit ku tabe du dem safara julit bu tabe rek première laisser passer aljana mooy julit bu tabe aljawaadu laa yadxulu naar moo tax mag ñi daan yëy gura sëñ kër Si maam Mansour ñëpp a daan yëy gura luñ ma saam dañ koy joxe te yàlla moo tax dangay ngay fell am yëy yëy yëy Mawlaaj Maalik mag ñi seet si ko mu jël doomu guro mu jël guro gi def ko ci palaat na Seex Haaji Mansour doomam séddale ko mag yi maam Mansour xam nga ñaataar la sept ans maam Mansour di ko séddale benn mag na ko damaa bëgg barkeelu ci yow doomu gura bi ma sa baay jox yéy ci ma yéy ci ndax ma barkeeloo sa baay ñemuma koo sa baay maam Mansour ko seqati ko seq ko nuyu maam Alaaji Maalik fayu nee na dund naa ak sama baay benn yoon la ma mos a yeddu keroog lu tax mu ne ko maasum li ma yaakaar ci yow ak li ma def ci yow furusoo toog ay nit toog ngay sàqami ñu lay xool xale warta sàqami ci kanam ma te boobu juróom-ñaari at la am juróom-ñaari at sàqami léegi nag amal sa doom boole ko gan ginaar léegi nga toog léegi léegi nga rus pooju góos ba lay jël bu droite ba xëcc dënd ba damm looso taj nga naan ko toogal jéet du toog nii la meloon may ñu jàmm la ilaha illallah ci àllin mi fu mu jëm ak ñun ci guddi gi oustaz dellu si waatal foofu ma dellu si foofu mu ne du lekk Sidi Hadji Malick radiyallahu buy lekk du tibb kenn du ma Maodo doomu laaj lu muy lekkee lu muy lekkee day dugal loxo yi ci biir Serigne Cheikh Tidiane Gaye ko bind man Maodo génn àdduna ba def genn wàllu siècle man may gën a àdduna lu ma la wax ci dama koo liir mbaa nit ku wér wax ko du ma inventé rus naa ko lu ma la wax ci Maodo rek xam naa cës laay hmm. nee na day dugal loxo yi laa ci baat ci daqaam ci laa daq ba mu tax mu mar baaraam yi dugalaat ba mu taq mu mat dugalaat ba mu taq mu mat ba muy sept fois mu ne alhamdulilahi lazi at amani min baadi joo bu ko defatee suba ci heure ba la te xam nga heure bu mu daan lekk diggante timis ak gée diggante timis ak tàkkusaan dinaa la wax emploi du temps ci lay def sunna ngoog moo tax sëriñ Babacar si radiallahu taala anu mm. alaarifu billah mm. alqutbu arrabani boo mosaana toog ci wetam nga ne alhaaji Malick si mu ne oh, ub insaanunte walakin na ruuxahu malakiyu oh. la ni ñëpp day lekk day naan waaye ruuxu malaaka la ko yàlla monteel xam nga lu tax maam laa mën so def na vingt deux ans laa dund ak sama baay musuma koo gis mu ne la xalilu naw min wa aklin xalla mm. minhu sharabun bul way siidi maa ngi ciy ñëw néew ma du lekk nee na dund naa moom vingt deux ans ñaar yoon laa ko ma gis mu doon naan ndox ñaar yoon laa ko mës a gis mu naan ndox Pape An magama nettali na ma maam alaaji Malick da daan wóor ci weeru koor ba heure bii mu ne tànk leen ci ndaami jox ma ñu tànk ci ndaali jox ko mu guux ko ñetti yoon gallaxndiku ko lekk benn doomu tàndar ma dem maam alaaji Mansour ne ko waa papa yow damaa gis ndox mi boo gis nga da nga koy yàbbi mu ne ko dama koy guux pour teral mbàcceer bi waaye dama jënt ci yonente mu jox ma benn kaas ca kawsara kero ba léegi ndox safatuma bu ma ko sexee day day wex ci man ndax kawsara ku ko naan doot lépp sax dara doot la sax ina ate naakal kawsara asal rabbi ko war xarit na saani ak ko saaj mali homme de dimension neexu la waxtaane neexu la waxtaane boo ko waxtaane rek mu am lu mu jur ndax nu dañ la na laa hatta xatta najua wa isa akal naa oustaz oustaz Pape Anne la Aline mi fu mu nekkoon mi ngi mi ngi ma ko xawoon na fii la dëkk réew mi bi ci dess mu ngi fi woon. réew mi ngi fa ma wax la leen baba ci alaaj malik nga ma laaj rek ci laa ne de mais ba tey yaa ngi ci kanay si ma kan mooy si ada malik commencé guñ de dinaa la wax léegi manaqibu dinaa la wax aadabu ay tegginam dinaa la wax muqaddama mi dinaa la wax téere yi mu bind bu ko temps bi maye dinaa la wax dinaa la wax insha balaa ngaa yeggal loolu yëpp corona bay dem balaa ngaa yeggal loolu yëpp corona dem kon insha rabbul alamin yàlla ya corona amin si alaaj malik danga may laajaat kuy moom eh, papa waaw sama alaaji Malick mooy nit yàlla bu mos a dem jàkk mos a dem jàkk loolu mooy ah. sëriñ si dañuy tabax jàkk tabax daara tabax kër dëkk ca kër ga ak njaboot ga taalibe yi dëkk ca daara ja ñuy julli ji ca jàkk ja di jàngale ji ca daara ja di tëdd ca kër ga ma alaaji Malick tabax kër njabootam dëkk ca mu tabax daara taalibe yi dëkk ya mu tabax zawiya ba moom dëkk ca di dem ca kër ga moom demul jàkk daa dëkk ci jàkk di dem kër doo laaj lu tax lu tax Maam Alaaji Maalik a ngi dugg ci biir jàkka ji quatre mois moins dix du matin mu ngi génn ci jàkka ji minuit moins dix te du yeesali njàpp ah non boo bëggee waxtaan si Alaaji Maalik homme de dimanche la daloon Cheikh Oumar Fouti Taal boo toogee ci wetam ne Cheikh Tidiane ku ko wax ñu ne amu mbaa yor na jàpp mbaa mësoor na mbaa ragal na yàlla mbaa jublu na penk ñeent yi kum daje ci yow tudd tudd jëmmu Seexu Tijaan ëpp na ci yow waaye garaat yooyu la yàlla def ci maam Seexul Haaji Maalik radiyallaahu taala ma ñëwaat ci ragal yàlla am Seexul Haaji Maalik dafa ne yaa rubba laylin bittu saamina ndek xat yi mutajaawiban mutasaajilaati xamaami nëriti nëriti aywa billaahi متساجلات حمام موضوع حب صاحبي والله خاتم خاتم الانبياء والله فمنون علينا ربي حزن ختام أجدف لني نخير